Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse dal ak jàmm ci yi dañu koy door ak réew mi quotidien mi xëyee ni ji nag lu jëm ci càmbar gi ñuy càmbar këru liggéeyukaay yi nag yennekaay bi ne Fadilou Keita mi nga xam ne rek moo jiite caisse de dépôt et de consignation jamono ji nag dugg na ci pecc mii benn ayu bés ginnaaw bi nga xam ne rek doon nañu càmbar port autonome bu Ndakaaru yéenekaay bi ne fi mu toll ni nag CDC jot na wàllam ci nar wi moom directeur général bu yes bi nag càmbar goo xam ne rek dina ko fas yéene amal jëmale ko ci personnel bi libération ne ko ab boo xam ne rek mi ngi bàyyeekoo ci IGE fas yéene càmbar kër googeek na mu daan doxee ci loolee la ñu soobu jamono ji moom Fadilou Keita ma ngay ne ko caisse de dépôt et de consignation kay jamono ji nag Fadilou Keita la mu ca bëgg bokk na ci recadré waat ko Sud Quotidien addu jëmale ci leneen mu soxal massacre yi nga xam ne rek amoon na ci caaroy chapitre bu yees ma ngay waajal fi mu toll nii nag ab comité ad boo xam ne rek moom la ñuy dénk ngir mu waajal lépp loo xam ne rek moo jëm ci quatre-vingtième anniversaire bi nga xam ne rek dañu ko war a màggal jëmale ko ci caaroy 44 ab rapport boo xam ne rek dina fësal ni mbir yi demee woon nag loolee lépp daa ñu ko jébbal président de la république bu Sénégal yéenekaay bi ne dogal googee nag ñu ngi ko jëlee ca conseil des ministres bi nga xam ne rek doon nañ ko amal àllarba ji ñu weesu yemook ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru juin atum 2024 ci noonee nag élimaanu jëwriñ bu Sénégal Ousmane Sonko nag moom fas fas yéene naa doxal lépp loo xam ne rek mooy dogal yi nga xam ne rek moom la ca njiitu réew mi bëgg ngir ñu daal di waajal nag màggal gi ñu war a màggal xew-xew bu doy waar nag nga xam ne ni taarix la ci réew Sénégal addu jëmale ci leneen mu di yëglekaay bii di la Quotidien tey jii nag ma ngay dellu siwaat ci occupation bi nga xam ne rek moo soxal domaine public maritime nag Thierno Bocoum ma ngay balancé jomaay hôtel bii di Azalaï yéenekaay bi ne hôtel boobee nga xam ne rek ci la ñu ko daal di tabaxee nag naka la ñu mën la Thierno Bocoum di laaj ci biir yëglekaay bi yéenekaay beneen di na ñetti weer ginnaaw bi ñu ko defee ci bopp réew mi nag Thierno Bocoum bàyyi lu leen dara nag ma ngay dal ci kaw Ousmane Sonko ci biir yëglekaay bi moom Thierno Bocoum ma a mayoon ab diir rek ngir ñu mën a organiser wu su ko defee nag ñu daal di xam naka la ñuy mën a doxalee ci rupture boobee nga xam ne rek moom la ñuy woote boobaak léegi waaye fi mu toll nii nag lañ leen mayoon jeex na tàkk moom ci poste boobee nga xam ne rek moom la jiitee bu Sénégal ma ngay xam ni nag respecté li nga xam ne rek moo di institution yeeg nañuy doxale loolee respecté wul sénégalais yi te bés bu Ousmane Sonko defee ab déclaration politique général feneen fu mooy assemblée nationale na ngeen xam ne nag waratuñ koo considéré ne premier ministre bu Sénégal président Bassirou Diomaye fay ci boppam nag moo war a assumer ay responsabilité responsabilités ndax moom nag jamono ji mooy président de la république bu Sénégal ba tey Thierno Bocoum di xam ne ni nag ma ngay lancé appel opposition bi nag ngir ñu daal di amal ab rassemblement bu mag a mag jëmale ko ci wàccaayu élection législative yi nga xam ne rek ca la ñu dëgmal ab dëkk dafa soxla ku jégu dëgër goo xam ne rek taxawee ñoom ñoo war a taxaw jàkkaarloog pouvoir bi enquête yëglekaay des ba tey ci kàddu Thierno Bocoum lu soxal déclaration politique général wala lu jëm ci pression fiscale yéene kaay bi ne moom Thierno Bocoum ma ngay yàq lu mel ne xamee kii di Ousmane Sonko léegi ko yëglekaay xëye tey jii lu jëm ci opération de désencombrement yi nga xam ne rek ñu ngi koy amal ci gox-goxaat yi yéeni kaay bi ne Ousmane Sonko jamono jii nag ma ngay leeral lépp ci kaw taabal ji moom nee na duñu may dara ginnaaw bi nga xam ne rek gouvernement bu Sénégal ñoo ngi koy ŋàññi boobaak léegi di dal ci kawam nag xamle ci biir yëglekaay bi ne yoon wi ñu jël nag duñ ca dellu ginnaaw ndax sàkkuñu benn yoon ku leen tabaat ci bopp réew mi bu ñu waree faluwaat kenn mënu ci dara waaye nag li nga xam ne daal moo taxaw jamono jiite mooy defar dëkk bi nag loolee ñu ngi ci te kenn mënuñu cee jëlee tribune yëglekaay ne Ousmane Sonko kay jamono ji nag ma ngay weddiwaat boppam ñaari fan ba mu demee ca Colobane di xamal ambulant yi ne yëguñu benn yoon nag yëkkati gi nga xam ne moom la ñu leen yëkkati tey jii nag ma ngay xam ne ni daal duñu bàyyi kenn muy amal ay liggéeyam wala muy bloqué yoon yeeg marché yi ci li nga xam ne rek jaarul ci yoon muy jàll suñu gouvernement bi nag du am benn pression bu muy amal jëmale ko ci kaw askan yu waaye nag xam leen ni nekk ñu ci neexal kenn ngir mu ñuy falaat ci beneen mandat Walf Quotidien dellu siwaat ci lu jëm ci wàllu emploi des jeunes yéenekaay bi ne liggéey bu mag a mag lay laaj ngir ndaw ñi mën a am ab liggéey lu jëm ci wàllu BTP bi nag wàllum agriculture di mbay mi ak wàllu artisanat nag yooyee ay yoon la yoo xam ne rek mën naa juróom xëy ci biir réew mi addu jëmaleel ci coow li nga xam ne rek moo xewee ca rajo télévision nationale mu di RTS liggéeykat directeur ba di Pape Alé Niang la ñu xam ne bokk na ci liggéey ba mu fa tàmbalee doxal dara jaarul ci yoon le mandat fellu ko ne moom kay RTS jamono ji nag sagara ngay xeeñ ci diggante direction générale ba ak ñii di syndicaliste ya agent yi jamono ji nag ñooy ñaxtu jëmale ko ci dogal yoo xam ne rek moom Pape Alé Niang jël na ko ca kër googee ginnaaw bi ñu ko installé léegi moom Pape Alé Niang mi directeur général bu RTS nag jamono ji moom it ngemb na taxaw fas yéene jàkkaarloog liggéeykat yi ma ngay xam ne ne nag ak lu mënti am rek man dinaa jël lépp luy samay responsabilité yër leen boobee yëglekaay àddu jëmale ci baccalauréat atum 2024 yéenekaay bi ne juróom benn fukki candidat yoo xam ne rek dañ leen a dàq ci yéenekaay bii di Vox Populi ne mbir ya ma nga xewee ci lycée Sing-Sing bu Kaolack juróom benn fukki candidat ak ñeent yoo xam ne rek dañoo waroon a amal baccalauréat ñoom la ñu dàqee ci centre yooyee ndax téléphone portable responsable centre boobee nag ne ginnaaw dañoo tere woon kuy doxantoo portable ci biir centre yi nag man sama liggéey rek laa def des na ci commission disciplinaire bi ngir mu xool naka la ñuy arranger bi la situation tàggat yaram la àddu jëm